ci waawoon a woote kon ak wuy ji leen ku aas am say ngërëm ci waawa na woote kon ak wuy ji ku jóg wuy ji maam aas am say ngërëm ku am góor gu mel ci réew doo gëlëm waawa na woote kon ak wuy ji ku jóg wuy ji maam aas am say ngërëm téeméeri lu la am téeméeri lu gàmmu ti waawan la am ngi am nay ngërëm nu ñaan tur bi yàlla mu tolli mayaam ci waawaa na woote kona bu wuy ji leen ku ne bu wuy ji maam aas am say ngërëm téeméeri lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu ci waawan la am téeméeri lu gàmmu ci waawan la am borom parasol baa ngi am nay nu ñaan tur bi yàlla mu tolli mayaam ci waawoo na woote ko nay wuy ji leen ku njëkk wuy ji maam aas am seen gërëm lu waay sos ngir yàlla mu dox jëm kanam lu waay sos ngir yàlla mu dox jëm kanam lu dul yàlla neen sos fii du dox ngir cërëm ci waawoo na woote ko nay wuy ji leen way sos ngir yàlla